rëbës fekk si fi njaaxum muy préparé combat am samedi bi ñu jëm ci digganteem ak Aline Diop la maa ngi sañ mbëri fi teew yëpp ku ci mel ni double moteur booy puy bébé julde de di sant staff bépp daal maa ngi leen gërëm ñoom ñëpp teewaay bi nu teewaay teew njaaxum fu mu mujj daaw ci saison saison daaw ban combat nga mujj bëre daaw man Baara Ndiaye laa mujj bëreel nu mu demee woon waaw maa daan waaw waaw maa daan mu mel ni njaaxum ay poids lourd lañ koy jox parce que daa non kii du poids sax gars yi ko def poids lourd mais man du poids ci man barke yàlla gars yi ñoo ko def poids lourd mais man du poids lourd ci man man sama bët ci mu xool du kooku. ñoo xam nga Alioune Diop bu baax loo ma mën a wax si moom. non ndaanaan la champion la mbër la waaw waaw. parce que man dama gis tamit ay kombaam day xeex day bëri te it macha taxawaay bi. non dëgg la moo ni muy xeex di bëri loo tax ma jël ko bu leen yambar wala muy ragal du ma ko jël man kuy xeex laa bëgg di bëri. parce que dama koy def man damay xeex damay bëree. waaw. lan moo tax njaaxum kon ñime lu metti ñime lu metti wax. non lam ji dara neexu fi lam ji moom ñime lu metti ak ku ci dugg rek du question ñime lu yomb lam ji dara neexu ci parce que bëree xeex moo fi am. kese du question njaaxum képp la de mbër yëpp a mbër yëpp ko ñime parce que kuy gemb moom taxaw nit ñi la xool moom ngay maye di xeex moom am nga fit. yën waa Rëbës sax laay wax lan mooy seen digganteeg waa Caaroy ak Lamsaar parce que gis naa double moteur lay bëreel yow ngay bëreel Aline Diop. Zal Baol bëri ki dem bëri nag brise de mer numéro 2 lan moo nekk seen diggante ak ñooñu boo gis seen combat yi xaw a kii daan na jam soo bëri dem bu yàggul booy puy mii lan mooy problème bi seen diggante ñooñu yàlla moo ko dogal du question de leen sidé du question dara yàlla moo dogal suñu adversaire lañu war a bëri ñoom ñi ñaan yàlla nag xam booy puy Zal Baol duñu faa dug dóor leen 2 0 maag double la ñu ñëw dóor leen 2 0 muy 4 0 waaw yow li nga wax ni non man est nee naa la man Babacar bëgguma lu yomb man xale laa maa ngi entraîné lekk maa tëdd maa nelaw suur ba doom laay xaar man combat bi moo ma ma ñor lii sax dëgg la nu mu demee nii mais dañu koy sant yàlla mais la am chance mooy combat ba te incha allah rabi combat ba du lu ñuy ñàkk dañu koy gagné incha allah rabi waaw. gagné ci ban façon. ci côté bépp dañuy xeex bëre daan ko dem ñibbi incha allah tarkindaa tarkindaa yi ngay bëreel de. non tarkindaa ak coow yëpp ay wax la rek ay turkindaa ak tarkindaa maak moom dong ñooy des ci géew bi du keneen ay tarkindaa ak yooyu yëpp loolu ay wax la rek ñun ñaar nooy des te géew ba que le meilleur gagne yal na ma yàlla may ndam lu set guy ci barke alxuraan. am na looy moytu si Aliou Diop. non Aliou Diop bu ma lu may moytu ci moom wala lu may ragal ci moom du ma ko jël. bu lu may moytu wala lu may ragal ci moom man du ma ko jël man dama pare lépp. dama pare lépp te boo ma gisee sax di nga xam ne man dama pare lépp te bu suur baa ma fëtte koo yow di xam ne kii pare na. gis naa la nga sadalu métti sànq ci box beeg yooyu. loolu sax coof la rek Babacar bala ngaa li lay wax nii bala nga koo xam incha allah rabbi suur ba nga ñëw stade ma sumee ko arbitre soufflé waaw. incha allah rabi la nu fay def maa koy def la fay neex maa koy def. maa la wax loolu. kon su ma la déggee yaay fecc yaay bëre yaay daan loolu nga bëgg a wax. incha allahu rabbi dama koy xamal ne incha rabbi na te bu teel te ñëw sax stade ba du fa am damay duy stade ba arbitre soufflé ma def ko li muy def mu daal di wéy maa la wax loolu. kon daal bu ma la déggee rëbës ak Dakar ak Bawol kenn du des. rëbës kenn du des réew maaw sama dëkk Réfane Touba Toul ba Néewraan Kombelaan Pergin Njaan tout kenn du des ñëw nu duy nu duy stade Iba Mar ma defal ko affaire léegi su ma la euh, laajoon tey relation bi nga am ak mbër yi nga dëkkal rëbës parce que gis nañ double moteur ñëw bokk ngeen nekk nii mais gis nañ mu ñëw ak ñi nga bokkal école ñoom bébé julde booy puy ak ñooñu waaw mbër yi ma dëkkal rëbës ak yi ma dëkkalul ba ñëpp samay rak lanu ñoo bokk waar wi liggéey lu ma nekk lu nu nekk ñoom dañu may ñëw wax ma lu ma nekk ma dama ko wax ñoom ñëpp samay gaan lanu samay rak lanu samay lépp lanu ay bébé julde ñëpp double moteur ñun ñëpp ñun ñëpp benn lanu boo dee see double moteur koor gépp ñoo andi ko entraîné kon ñun ñëpp xam nga ne ñun benn lanu damay ñaan incha rabbi waa Thiaroye nu duraat leen deux zéro loolu laay ñaan kon loo yóbbante fëgale moom itam parce que war naa laaleeg yéen de fëgale moom li ma ko yóbbante ñoom ñaar ñëpp a yem rek li ma koy yóbbante nun moom sa pare tout na pare sunu grand la na pare rek ñëw yaaru nu këpp ko mu dem jeena waaw sa digganteeg sa digganteeg mbëru bawal yi bu ma ne mbëru bawal yi rawatina jëkkee côté Refane ak yooyu waaw sama digganteeg mbëru bawal yi day ñëw jàpp ci contact yi barka alxuraan xam nga ne kuy contact ay ay tafaatin ay maam góor juufin Aliou Diop ta wax billaay Aliou su ma ko jàppee dama ko naa waa tribune ba am jël leen mu tam li jeex liggéey naa ko te gëm naa ko te gëm-gëm boobu laay doxee fu ma mën di toll loolu laay doxee ba suuf lay damay dox ci koom duma ko daan ko dem barka alxuraan waaw loolu laay ñaan inshallah rabbi waaw léegi am na lu fi xew démb la di tiis dal ci wàllam loolu loo ciy wax waaw sunu papa Mor Fadam tiisu waa laam jëpp nu ngi koy ñaanal yàlla fi mu jógee fa mu jëm gën fa mu waaw a ko fa mu jógee yàlla ko yàlla xare àjjana yàlla yërëm ko te xam ku baax la daal nun gisuñu dara ci moom comme li ko mbëri géej waaye di seede nun sori no ko seede nga xam ne ku baax la yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana léegi looy mujj wax say supporter ak ñi nga xam ne ñooy war a ñëw samedi lamb ja ak promoteur bi tëgg lamb ji muy Sam Production waaw ginnaaw bi ma sante yàlla maa ngi nuyu ñu fi teew waa site bi di lam ji incha allah dina neex dina am ambiance maa ngi wax sama supporters yi nanu teel a dem samedi stade waa Rëbës waa Midina waa réew maawa reefan njaan ba kombelaan përgin ñëpp bàyyi ma fen ba kokki juuf sama dëkku sëriñ bawol gépp daal waa mbaadaan mbewaan ñëpp fi sel ñëpp laa woo ak yaay ñëpp laa woo ma feesal stade ba daan Aline Diop jël bu set wicc ci barke El Hadj Fallou. amiin waay amiin waay loo ciy yokk waaw ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu si di nekk di nuyu suñu grand njaaxum mën naa ne mooy suñu moom la roy ci làmb lépp lu ñu mën si bëree moo ñu ko def kon bés bi dañ ci am xel mu dal. waaw di ñaan yàlla suñu borom may ko ndam lu guy bàyyi seen naa xam ne duubal suñu di ñu ñu ñibbi insha allah rek déggol Cheikh Mbaba ba da rek di liggéey ak di nuyu suñu entraîneur Cheikh xam nga ñooy ay xale rek déggal leen ñu nangu yéen ñu tamit waaw loolu waral rek xam nga résultat yi am quoi. yow lay wax Lamsar Boy Pouye. waaw Lamsar li ma leen di wax nañu waaj rek te xam ne am nañ daanaan de kii daanaan la comme li mu wax rek damay waxaat ko laa lay wax 2-0 lañ leen dóor 2-0 lañ leen di dóoraat ñun ak ñoom ndox du bàyyi yoonam dañ leen di duma daan leen du duñ ñu téye dañuy dem bu samdee na naa la ku yéex stade doo dugg trois heures dañu tëj stade bi. dañuy ñëw ñu duma ko daan ko xam nañ Aline Diop ñun xam nañ ko bu baax man Kër Masaar laa dëkk ñoo bokk koñ xam nañ ko ko gardien mairie la entraîné wul. duubul loo siy yokk comme que gardien mairie la wax ñun moom loolu ñu waaw comme ni ko gars yi waxee rek xam nga Ndiakhoum moom jantal frère la quoi wax dëgg yàlla moom moom li jomb ko quoi wax dëgg yàlla borom baax la lépp lu ñun nekk yéen koy gis da siy ànd ak ñun ba mu jeex tàkk xam nga kon tamit mënuñu loolu di ko ñaanal ndam boobu suñu teewaay fii loolu rek ñun doo affaire làmb du dara avant làmb lu ñu seeq nii moom dafa wees ay affaire làmb waaw dëkkandoo bi dafa wees ay affaire làmb parce que dañuy seeq yeneen ak yeneen yoo xamante ne du sax ay affaire làmb kon ñun bu ñu ñëwee fii nii rek c'est normal war nañ fa ñëw du defuñu loolu nag di ko ñaanal ndam dara lu leen di moom ku ne xam ne ne deux mi-temps la quatre mu tas loolu la amul leneen waaw jël nañ deux yi dañuy xaaraat mi-temps yi jot rek ñu dóoraale te muy ndam lu sedd guy. parce que pare na léppam pare na. lépp pare na ñaan yàlla bu jour baa yàlla ànd ak ñun rek ñu ñëw daan ko jël bu set becc dem ñibbi parce que Aliou Diop man pour man daal mooy loolu daal. non adversaire la sax mais nag moom daal mu ngoogu rek moom daal bu bëggee mu neex lu ñëw teel a daanu dem ñibbi rek waaw parce que leneen lu ko def it dañu koy toroxal dañ koy duma rek dañ koy duma rek. laaj boobu moom xanaa maa ngi woo rëbës gépp autorité yëpp maa ngi leen di wooyu rëbës yëpp ñu jàppale ma ci combat bi ma duy duy stade ba jàpp Aline Diop duma ko daan ko gunge double moteur muy jàpp fëgal la duma ko daan ko incha rabbi